dalale borom zikru laa nga xam ne moom Sénégal ko bëgg àdduna ko bëgg ngir li muy def euh, ñu koy nuyu bu baax di ko dalal muy waajati loo xam ne nii lu am solo la nuyu naa la Alioune Badara Ndiaye. waaleykum salaam. na nga leen di siyaar baax di leen nuyu. Uh-huh. di ci plateau bi. leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di baax. nuyoo di ko jaarale ci borom kër gi xam ne sunu daje fii moom moo tax dëgg la nu siyaar naa la delloo ziyaar yàlla na yàlla nangul ñu ziyaar ñëpp Ah, mu mel ni nag euh, fi mu toll nii li nga xam ne moom moo di musique spirituelle bi nga xam ne moom lañuy def dafa am beneen dimension boo xam ne jël na ko ci réew ndax nag euh, fi mu toll nit ñi dañ koy wax sax nee nañ ñoo gën a am bës sax ñu nekk ci ndax yoon bi ñu nekk dañ koy wax tout temps di dañ ko tooñee en tout cas am na benn engouement bu mu gën a suscité léegi boo xam ne euh, sénégalais yi gën nañ ko bàyyi xel ba tax na nag loolu saa bu nekk yéen a ngi organiser ay ndaje yoo xam ne dañ fay ndaje nag ngir màggal mag ñu baax ñi fi nekkoon te liggéey ci diine ji mm-hmm. màggal nag gën di mbindeef ñi ñeneen ak ñeneen euh, ba tax na nag yaa ngi ciy waaj benn boo xam ne biit bu am solo la waaw maa ngi waaj euh, Grand Théâtre samedi bii ñu jëm waaw muy deuxième édition mm-hmm. sant sëñ Fallou Baye Cheikh Abdou defoon ko daaw koy ko def ñu mm-hmm. jëmaat bii ñëw Grand Théâtre ci woo Sénégalais yëpp mm-hmm. euh, diaspora bi di ci woo képp kuy wax ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah di ci woo ba ci woo jàngu bi mbokk chrétien yi ñu ngi ci woo comme noonu nga ko waxee mm-hmm. ko mm-hmm. ko defee ci mbedd yi yóbbu ko Sorano yóbbuwaat ko Sorano yóbbu ko daaw Grand Théâtre nit ñi dugg ba am ñu des ci biti ren xam naa dañ ko bëgg buñ ko yóbboo déwén yóbbu ko si ses incha tax tey jii ñëw samedi suba laa waroon ñëw waaye dafa xat boo fi mu ne boo déggee xam ne. caravane ba ña ngi may xaan rek dana war a def caravane. Mhm. def Guédiawaye Pikine euh, daanaka banlieue bi yëpp. Mhm. suba vendredi bi man damay noppalu. mais gaa ñi dañuy def caravane dugg Ndakaaru. Mhm. ñun daal ñu ngi ci événement bi. te ci bàyyiwaat xel na ma ko xaw a xawoon nag borom télé bi ci festival bi. ñu ko ciy woo. le quatorze. ci woo ñëpp nag di ci woo sax président de la république ci woo soxnaam ci woo El Hadj Malick Gakou mhm. ci woo monsieur Aline Sall ndax comme doomu gii jaway leen di ci woo ñëpp nag na ñëpp ñëw ñëpp ñëw jox na ñëpp loxo mhm. bëgg ñu jàppale ñu mhm. ndax noo ci te yombut yàlla nag ko santul da ngay xalaat te nag ñun sant mënu war ndax yàlla eh, defaluñ ko lu tax mhm. mu ngi xëy dinu bàyyi ñuy dox ñenn ñi tëdd ci hôpital yi ñenn tëdd ca mhm. ci bàmmeel yi kon sant rek moo ñu war mhm. nu mën a mel daal la nañ sant nañ sant rek nañu sant waaye nag dafay baax euh, mhm. ndaw ñu mel nii euh, di liggéey ci liggéey bu am solo te surtout nag li mu suscité léegi loo xam ne dañ koo commencé woon ci ay koñ commencé ko ci biir biiri kër mu dem ba léegi bu demee grand théâtre bu wootee mu fees dell daanaka bay tuuru ba nit ñi duñu dugg kon loolu war nañoo lëj mat la ca ne ba tax na ña nga xam ne ñoo ca war a jàpp jàpp ca ndax ñun ñëpp Sénégal ñoom ñoo ko moom mm-hmm. kon nag baa ngi noonu foog naa na ñëpp ñëw jàpp ci mm-hmm. waaw ñu ngi ñu ngi ñu ngi jox ñëpp loxo mm-hmm. pour ñu jàppale ñu waaw ah. ndax àddina jàppalante moo am solo te nit bu te wax lu ba lu rafet na noppi te Sénégal ñoo bokk day te jàng xaadar layen ñëpp calama calama ñoo bokk day bokk baay ba suñu bokk yi kon ñu ñu ngi jox daal ñëpp loxo wax di guddi gi sant sëñ Tuubaa la ko tàmbali nañ kaam yi ndax wàcce nañ ci fi nekk nii ñu ngi toll ci soixante-dix kaamil. Hmm, macha allah macha allah. bëgg kaw gi nekk xëy na waaye nag biir dañu bëgg mu nekk baatin. bëgg mu nekk mu daje folklore nii rek ñu ne daanaka dañuy tëgg ak nangam. te yool bi ñu ko jox sëñ Tuubaa ñu ci jàng ay limu xasaay tey jii daanaka daayira ba man maa may euh, daayira boo xam ne xasaayit la daanaka damaa bëgg daal bis bi bari yiw. dama koy def waaye bëgg naa mbari li ma ci bëgg daal cent kaamil daal laa ci bëgg su nekk amagum nañ soixante-dix te bëgg naa ci maa ngi ñaan suñu borom def nag ci barke alxuraan dëkk bi jàmm ku bëgg jàmm suñu borom def la jàmm ku bañ jàmm suñu borom forcé la jox la jàmm jàmm ci lépp xëy ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di di wax ñu ma bokkal plateau bi dama sonn. xam nga nag xam nga nag boo ñëwee nag sonn dañuy bëgg nga am loo ñu may rek xam nga bu fekkee ne da ngaa sonn dafay ah, zikru laa toog ci plateau bi ba jóg nag te du am loo xam ne da koy maye loolu moo tax ma ne ba ma gisee mu naan damaa sonn rek damaa damaa xaw am kii daal. lay dox màkk am lu koy woo. ko Seyduna Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. dëkk kéwal mooy woo Seyduna Muhammad. kéwal gaa nga naan ko. man mi dan ma jàpp te dama jur ñeenti doom ñu ndaw bàyyi leen ci kër gi te tëdd xiif bëgg maa rey ma naa doxantu lu ma leen nàmpalee ndax sama ween yi amul soow ñu jàpp ma te sama doom yéen may xaar Seydina Muhammad Seydina Muhammad teg kiwal gi kiwal gi daw di jooy kiwal gi yéegi ca doom ya doom yaa ngi ko naan yaay booy baay booyoo yow yaay foo nekkoon suba ba léegi ma nga naan lekk leen te naan leen tey jii ngeen may bu jee ndax damaa gis nañ cee koo xam ne mooy Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam majiidu yow dong laay way laa ilaa ila laa jalla jalaaloo laa ilaa ila laa jalla salaaw azakarim ibnul karim fa ismugo abdul karim warza karamati abdul karim almardun faadal sa abdul karim bakke falli loon borom makarimul axlaa ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax sëñ abdou karim mbàkke borom makarimul axlaa kontaan nañu njaay di wax nag ne wax ji benn la rek na ñëpp dem grand théâtre le 14. mu njaay mu njaay ku ma Ah, ndeysaan su ma yee day jël millions yu bëri teg ci ko table waaw parce que sama doomu bàyyi la. <laughs> ndeysaan sama taaw moom laa ko tuddee. ndeysaan bàyyi la sama bàyyi ñëw day ak bàyyi. macha allah millions yu bëri ku baax. ne ma lu ñuy def man ko nangu. wallaay nit ku baax. il faut ma sant. macha allah ku yàlla baaxal buy nag. jërëjëf maa ngi sant maa jërëjëf wax dëgg yàlla. Pacha. maa woo Pacha dëgg yàlla maa ngi woo daal ñëpp. di woo surtout nag di woo waa Géejawaay. dëgg la. su nekk nii ba mu jógee fii léegi ci caravane bi fi nekk ñu ngi may xaar. Mhm. génn t-shirt génn banderole yi. ah waaw. Sénégal jëm lii daal ndaje national la bu ko kenn wute na ah, ñëpp dem la 14 juillet incha allah euh, fekke ji euh, bis bu rëy bi nga xamante ne taxawal na ko moom borom Zikru laay muy ba Badara Ndiaye mbégte la ñu amoon ngir togg ak moom ci plateau bi xam naa ni yéen ñi seetaan yéen a ma gën a bég ndax moom Sénégal ko bëgg àddunaa ko bëgg macha allah tubaarkàlla li muy def mu mën ko lool kontaan nañu ci moom léegi léegi nii